lii rek moo tax ñuy wax tooñ baaxul ñu ngi leen di nuy yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci King Taalif di leen wax saa yu nekk bu ngeen seetaanee na ngeen abone te sem vidéo bi te partagé ko su fekkente ne li King Taalif di def neex na leen te ngeen bëgg leen a yokk doole kon nag ñu daal di ñëw daal di leen di indil li nga xam ne mooy histoire bi. kii nag dafa doon benn borom alal boo xam ne yàlla da koo dénk alal lool. mi ngi dëkk ak soxnaam waaye it am na doomam joo xam ne doom ju ndaw la ju nekk ci kër gi bi loolu amee benn bis ki nga xamante ne moom mooy pàppa ji daldi xëy dem liggéeyi bi mu demee fi nga xam ne fa la nekk di liggéey mu daldi toog tuuti rek li nga xam ne moom mooy téléphone am daldi sone bi mu sonee mu daldi jël ndake ki nga xam ne mooy soxnaam moo ko doon woo soxnaam si di ko wax ne ko sa doom ji dey boobu ba tey mi ngi nekk ci biir kër gi di yuuxu rekk man daal li ko dal jaaxal na ma waaye bi loolu amee nag mu daldi di jaaxle ci lool lool daal dagg lépp lu doon def ngir mën a ñëw daat koy jël man ko yóbbu hôpital ngir xool ba xam lan moo ko daldi dal bi loolu amee nag mu daldi jël otoom di dawal xel yu méttee métti ci kaw tali bi ngir mën a daal di dem sowe li nga xamante ne moom mooy doomam jooju ñu koy woowee waaye bi mu dawee ba daal di àgg daal di dem jël ki nga xam ne moom mooy doomam ji daal koy dugal ci oto bi ak ki nga xam ne moom mooy soxna si ngir ñu daal di dem ci hôpital ba waaye soxna si mi ngi naan ko loo daw doyul waaye booba mi ngi daw xel yu metti waaye teewul soxna si naan ko dawoo dara ñu ne ci kaw tali bi waaye li ñuy daw lépp nag am na benn oto boo xam ne mu ngi nekk ci fi nga xam ne mooy seen kanam oto boobu nag di def saa yoo xamante ne oto bi yàpp malaat bi mi ci ginnaaw dem ba bëgg koo doubler rek mu daal di ñëwee ci côté bi nga xam ne fi la ko nara daal di doubler su demaatee ba mu yàgg mu dem ci beneen côté bi ngir bëgg a daal di jàll mu fekkaat ko foofu nga xam ne daal doon na lu yéeme yéeme. waaye mayu ko fenn fu mu jàllee bu ñëwee côté bii mu daal di àll bëgg a jàll mu daal di koy kale bu ñëwaatee côté bale daal di bëgg a jàll mu daal di koy kale mu doon loo xam ne lu yéeme la ñoom ñu nekk ci biir oto bi rek ngir daal di bëgg a profité yóbbu seen doom jooju ndax mi ngi ci biir oto bi di yuuxu yuuxu yu metti waaye nag kii nga xamante ne moom mooy borom alal ji dem na ba jaaxle ci loolu ndax mënta jàll benn yoon ndax kii mi ngi koy koñe ci kaw tali bi te loolu dafa mel na bari na lu koy gis léeg-léeg nga gis oto boo xam ne dalay lay daal di bëgg a doubler waaye da koy daal di koñe ci kaw tali bi nga xam ne moom dafa daal di mujj di jooy jooy yu metti moom tamit ndax doomam ji jaaxle na ci te kii mayu ko mu jàll waaye bi loolu amee nag mu daal di koy bàyyi mu daal di jàll bi mu ko bàyyee nag mu daal di jàll moom mu daal di xalaat ne day am na bis day ci lu tollook ñaari at mos naa nekk ci kaw tali bi am benn oto boo xam ne mi ngi ci ginnaawam daa di bëggoon a jàll waaye moom tamit da ko doon koñe côté bu mu jëm rek mu daal di jëm ba ca des bi loolu amee mu daal di xalaat ne xëy na loolu la ko yàllay fay côté bu mu jëm rek mu daal di jëm ba ca des ba borom oto bi day def bu ko bàyyee mu dem tuuti mu daw ay xel yu metti ngir ñëw bëgg koo romb mu daal di koy kii ba oto boobu dafa daal di mujj def soog ñi nga xamante ne ñoom la yeboon doomam jooju daal di damm mu doonoon lu doy waar waaye nag bi mu ko bàyyee mu jàll bi mu demee hôpital doomam ji dañ ko daal di yóbbu urgence ndax feebar bi doon na feebar bu doy waar lool waaye moom xam na ne xel lii mu defoon moom la ko yàlla daldi fay nii waaye nag moom mi ngi doon jéem a def ay gëstu ngir bëgg a gis ki nga xam ne moom mooy de moom la defoon jëf ju ñaaw jooju noonu ngir jéggalu ko ngir doomam ji wér waaye nag dafa mel na loolu da koo daal di të ba tax na loolu ub na boppam lool nga xam ne mi ngi ragal ne su gisul waa jooj yi day ba jéggalu ko doomam ji mën na cee jaare daal di ñàkk bakkanam ndax wóor na ko ne tooñ googu mu defoon moom la ko yàlla di fay kon nag yow doomu aadama bi del wattandiku tooñ ak ci anam gu mu mën a doon dee ko wattandiku ndaxte day mën ngaa tooñ nit mu neex lool wala nga ëpp ko doole day mu neex ci yow lool waaye xamal ne lum yàgg-yàgg yàlla dana la mës a teg lu demee noonu kon nag léeg-léeg doomu aadama bi jànkonteeg mettit yu bari bu fàttalikoo ci ginnaawam defoon na nit lu mel noonu wala mu tegoon ko doomu aadama kon nañuy rafetal tey moytu ak tooñ su fekkente ne danga ngaa tooñ sax te teyu ko nga daal di jéggulu ba ki nga xamante ne tooñ nga ko jéggal la ndax sunu borom bañ laa teg lu mel noonu nan ci bàyyi xel bu baax jërë ngeen jëf